la ca des bu la wërsëg bu la wërsëg tax a naagu bu la tax a daagu ndax jiili mbay la ko ëppale njugo kebe la ko ëppale ana ñu tey suuf lekk na leen seen jëf la lekkul waaye lekk na seen jëmm yàlla na kon kon kon lu wërsëg bari bari xamal ne la ko jox rek dala koo jox rek ngir nit ñi koy yaakaar ci yow nga bay ta seen yaakaar man ne moom laa lay wax nee naa la ku la fëgg suba teel bul ko jéppi mukk bu ne yàq na samay nelaw kii daf maa yeb déedéet bu neexoon yàlla yaay xëy di fëgg nit